ngeen jëf euh, salaamaaleykum d'abord maa ngi nuyu ñëpp di nuyu monsieur le maire de la ville moom mooy suñu maire euh, démb barke démb mu nekkee si suñu programme di dajale waa jeunesse si waxtaan ak ñoom bépp bi mu déggee xabaat bi nag affaire bi metti ma lool moo tax tey mu ñu rendre ko visite ñaan na ko yàlla ñaan na ko yàlla defal jàmm parce que li ko dal tey mun na dal benn Thiessois li may faral di wax Thiès wenn bopp nañu c'est pas la politique yi ñu lii Thiès lu ñuy lii mooy ay mbokk nañu tey ku laal monsieur le maire Babacar daf mel ko Habib ñaa nga laal ñu ngi sant yàlla nag affaire mënu gën a digéré wu gën a mënu na gën a garaaw yaakaar naa ni si yi ku si nekk tey boo demoon sa dëkk ñu def la ko tey yaakaar naa dëkk bi day jóg gis nañ même si wàllu presse bi am na benn responsable patron de la presse bu xam ne am ñu ko attaqué mais waa dëkkam ñoo jóg lu ne wax nañ ko donc ñun Babacar suñu frère la suñu maire la tey ku ko laal daf mel ni comme ñu nga laal tey moo tax ma ñëw tey en tant que responsable politique ñoo di ko rendu ko ziara ko baal ko ak si tamit si tabaski bi jot parce que gisee wuñu c'est un frère et puis li may far li wax toujours suñu relation yàlla moo ko dogal ñu xamante on s'est connu comme ça. mu sopp ma ma sopp ko ku doon ko baax moo tax tey moo waral tey ma ñëw di ko massawu di ko ñaanal jàmm di lu dire que ñun de fu mu teg tànkam dinañ ko jàppale lii nag violence moom du lii mooy avancé réew du lii mooy avancé élection yi élection yi li may faral wax toujours ku nekk am nga sa programme na nga proposer un programme yaakaar naa ne ça fait même pas dix jours wax naa ko si benn émission ma ne leen les gens sont en train de critiquer de lancer des tracts à gauche à droite le maire de la ville est en train de poser des actes mu ngi def ay curage des canalisations ñëpp xam nañ nawet bu jotee inondation bu jotee kër yi ngi def mu ngi liggéey donc tey lii ko dal tey lu ñu metti la ñun Ceesuwaay metti nañu lool tey moo tax man ma déplacé en personne pour venir les rendre visite en même temps di ko massaw di ko ñaanal jàmm loolu tënk waaw surtout wax naa ko barki démb dama koy waxaat ma ne ko gis nga violence dañ ko éviter parce que toll na instant boo xam ne violence du lii mooy defar dëkk sànq ba léegi maay waxtaan ak le maire macha allah mu doon taalibe mu doon ku baax ku am ay vision parce que mu mooy ñëpp mooy si maire ah. même tey le président public bu ñëw Thiès say moom la war a seet si moom moo ko war dalal keneen moo ko war dalal. moo tax wax naa ko ba taay ma ne leen acteurs politiques yi surtout aussi j'adresse tamit ce message à la jeunesse nañu xam ne la politique la la violence du régler dara nañu bàyyi ay violence képp ku leen di woo si ay violence woowu leen si lu baax li may ñaan mooy ni ñu xool ku si nekk programme bi ngay proposer pour la jeunesse surtout pour l'emploi des jeunes et les loolu moo gën a am solo moo gën la violence parce que violence du ñu avancer dara